waajal ilaahi maskani tuuba social safar 1445 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 di liggéey yi nga xam ne commission sociale bu Touba ca kanam mi ngi koy amal ci dëkk bi di Touba ci màggal gu mag gi ngir jàppale néew ji doole ji liggéey boobu boobule door nañ ko ndax am na délégation boo xam ne ci njiital Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fatah mi jiite commission sociale bu Touba ca kanam àndoon na ko ak délégation bu takku ñu demoon ci prison bu Mbacke ngir yóbbul leen ay xéewal yoo xamante ni dafa jëm ci liñ leen di jàppale ci màggalug Touba ay bernde yu yaatu muy àddiyee joo xam ne dañ leen koy jàppale ci safar gi rawatina ci màggalu Tuubaa gu mag gi ngir ànd ak ñoom bis bu mag bi nga xam ne bésub sant yàlla la donte ñoom ci am natu la ñu nekk waaye ñu yëg bu wér ne bésub sant yàlla bi ñoom ci lañ bokk moo tax ñu indil leen bernde yu yaatu yi nga xam ne jébbal nañ leen ko noonee lañ ko defee ci prison bi nga xam ne moom moo nekkee ci Diourbel bi ñu agsee délégation bi nga xamante ni moo nekk ci commission sociale bu Tuubaa ci kanam jébbal nañ leen àddiyee ci benn nag ceeb bu takku diwlin suukar soble pombu teer ak dépense ci koppar loo xam ne dañ ci lancé ñetti fanu màggal gi muy bu ñu nee suba la màggal bisu màggal ak bu màggalee ba ci ëllëg sa lim bi nag moom lañ jébbal mboolem ñaari prison yi muy prison bu Mbàkke ak prison bu Jurbel muy ni ñu ko baaxoo amalee at yi weesu lii nag lenn la rek ci jëf ji nga xam ne commission sociale bu tubaa ci kanam mi ngi koy jëf ci dëkk bii di Touba rawatina ci màggalug tubaa gi mu jëm ci social safar képp ku bëgg tàbbi ci liggéey bi wala nga barkeelu ci nga ko def ci yi am na Orange Money am na Wave muy 77 914 26 68 wala ci numéro aywa leen ñëw leen gaaw jaamu yàlla ci jaami yàlla yi waajal ilaahi maskani tubaaba mislasmi abijaayi xayri man nabaat